lycée Cheikh Anta bu Dakar tëj ay wuntam weeru juin bii ñu weesu ba léegi ci diirub juróom-ñetti weer njàng maa ngi am en ligne maanaam ci internet bi mu nekk lu étudiants yi di ñaawlu ak di ko bañ moo ne ay faculté yu bëri tàmbali nan di def seen examen wu premier semestre. mënuñoo nekk. toog lu mot 6 mois yoo xamante ne kenn suñu jàngul wala mu ëpp ko sax ba pare ñu ñëw di ñu def lu examen ci ay anam yoo xamante ne vraiment kenn xamul lan la parce que da gis ñoo xamante ne dañuy jóge fu sori amuñu kenn ku leen loose ñeneen ñi seen dëkk la leen jóge tey jóge ay 3 heures du matin wala 4 heures du matin ñëw pour def examen fii nii. ñàkk jàng gi nu ñàkk jàng tax mbir mi jaaxal étudiants yi. dañuy forcer examen puisque ça fait mois ñu tëj université bi après ñu proposer ñu cours en ligne. alors que tout le monde n'a pas accès à la connexion ça aussi c'est un problème ba pare defoo cours nga ñëw ñu proposer la examen direct ça aussi euh, métti na daal métti na. buñ leen dégloo mbir mi ñëpp ci am wàll. ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi que man damaa gis ne seen sagante ak ñàkk a bëgg a gunge étudiants yi pour ñu dellu ci classe yi moom laa fi gis mais du université boo xamante ne mënul jàngale. amicale yi ñu nekk di maanaam euh, organiser bi université. di leen implanter biir université moom lañ war a dissoudre ay amicale ay comment dirais parti nañ nañ ko dissoudre puisque à chaque fois day indi ay problème université ay xeex. gannaaw li xewoon ba nu jàppee Ousmane Sonko juróom-ñetti weer ci ginnaaw université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba léegi parewaatul pour dalalaat jàngkat yi loolu di delloosiwaat laaju njeexital yi politique di mën a am ci njàng mi.